Alassane Sy King Far Palace Hotel fa laa nekkoon di liggéey quoi. def naa fa presque euh, lu mu gàtt gàtt def na fa vingt deux ans. def naa fa suñu mbëbët ak suñu naxar mooy problème mu racine rek mooy suñu problème ñun. racine rek mooy suñu problème racine daf ñu fekk foofu ñëw na daf ñuy dimbali mais ndeke dimbaliwuñu boppal la fa nekkee ça fait des années ni ñaa ngi foofu toog di liggéey mu fekk ñu foofu. wax a wax a wax a wax a wax ba jot hôtel bi bi Covid bi ñëwee mu licencié ñu bi mu licencié nañu motif euh, d'économie moo tax mu licencié ñu comprendre ñu loolu comprendre ñu boo gisee mu éco mu licencié ñu man damaa jàpp ni raison de politique la parce que da doon jàppale président mak Sall du xool lu neex Macky Sall ba tax ñun ñëpp mu licencié ñu dem jëli ay nit Podor ak euh, maatam indi leen foofu te ba léegi jusqu'à présent mi ngi recruter. ñun ay père de famille ak ay mère de famille yu nekkoon hôtel doon daan seen doole mu fekk leen foofu ne day bokk ak ñoom lépp mais loolu amul Racine bi mu njëkkee ñëw top taxaw dafa ne sama salaire sax du ma ko laal dama koy séddee dama koy bokk ak yéen dama koy bokk ak yéen loolu la njëkk a wax ñëpp kontaan jóg tàccu ko mais finalement kenn dootu kenn mënul comprendre dafa dem ba diviser hôtel bi en deux parties en deux parties partie bi mooy partie partie bi mooy partie bu mu fekkoon ci euh, hôtel bi. léegi nee na ñun ñun ànduñoo ak moom wala dañoo nekk beneen parti mu dem xool ñi nga xam ñi ko neex moo jëlee leen Podor ay frèram ay sœuram ay jarbaatam ñëpp dugal leen ci euh, hôtel bi yow nga fekk fa ay père de famille mère de famille yu fa def vingt ans nga dàq leen foo ko teg ñun boobu ba léegi fu ne dem nañ fa dem nañ inspection travail dem nañ fu ñu xam fu nga xaman dem nañ fa fu ñu xam rek dem nañ fa kenn comprendre lu dara nu mu demee jaay nit ñi doole jaay nañu foo demee rek ñu la Racine jaar na fi foo dem ñu la Racine jaar na fi kenn comprendre nu mu demee état bi fi nekkoon nag moo taxal mu doon def lépp parce que lépp ñoom ñoo ci àndawoon nag moom. léegi son excellence monsieur président Diomaye jaxaar fay ñun la ñuy ñaan mu wax ci problème King Fahd il est temps affaire bi dafa yàgg ay père de famille toog ñii dee nañ ñii dof nañ ñii ñi ngi ci mbedd bi di taxawaalu ñii seen jàng doom yi yàqu na boo xëyee sax pour nga naan café problème la.

di indi ay mbokkam plus de cent jeunes ñi nga foofu yi nga xam moo leen fo indi ñëpp ay mbokkam lañu parce que la raison de politique dañ koy jàppale ci mouvement am boobu. dañ koy jàppale ci mouvement am moo tax hôtel bi boo waxee ñun la Racine dafa am doole kenn mun ko fi jëlee mais état moo ko bu doole te président dafa am lu mu waxoon jubal jubanti dëggal la waxoon. ci loolu lañ moom moom la loolu la ñuy xaar mu def ko King faat Palace il est temps hôtel bi nu mu meloon ak léegi boo xoolee sa yaram day daw. comme auberge yi la comme auberge la sax laay wax léegi parce que actuellement kenn nekk fa présent dong moo fa nekk clients yi ñëpp daw nañ kenn ñëwatul mais lan mooy le problème état bii dëgg la ñu mën a ñaan ngir yàlla war a suul lii ngir yàlla war a suul nañ wax ci problème King Fahd nañ ko audité ñu ñu war a delloo ñu delloo na ñu liggéey nga jël nit ñi dina yóbbu retraite à 56 ans te euh, président Macky Sall à 60 ans la waxoon tegul yoon fu mu tegu tegul fenn jaay nit ñi doole foo dem rek ñun la Racine ñëw na fa foo dem ñun la Racine jaar na fi kenn ñëmewul sax tudd turam mais doo comprendre la mooy problème bi état bu bees bi dong lañu mën a ñaan ngir yàlla war a suli di ko ñaanaat di ko ñaanaat monsieur Sonko di ko ñaanaat son excellence président Diomaye na wax ci problème King Fahd il est temps dafa commencé ëpp loxo ay père de famille ba léegi ñu ngi toog mais comprendre ñu comprendre ñu il est temps daal moom rek ñu mën a ñaan fu mu nekk nii mu wax ci problème King Fahd Palace te moom mi ngi recruté ba léegi di jële ay nit Podor di jële ay nit maatam di indi ay jarbaatam ay dëkkandoom ay rakam ay copainam ay xaritu copainam ñëpp te pourtant King faat am na ay pas yi nga xam ne dañoo retraité ay retraité la ñu ngi foofu toog ba léegi jusqu'à présent ñu jël ay bu xale yi ndaw dàq leen si biti ñi nga xam ne dañoo yoroon seen njaboot man mii di wax ak yow sama doom bàyyi nañ jàng amatuma lu ma fayee location bi sax dama koy débrouiller léegi dama koy débrouiller da ngay dem ba finalement da ngay nit ñi da nga leen soof parce que demande sociale bu bari bi yow sa bopp nga doon liggéey di faj sa bopp say soxla lépp di ko mënal ko sa bopp mënatoo ko mais dafa metti dafa metti état bi rek la ñuy xaar ngir yàlla nañ ci wax nañ ci wax loolu lañ lañ am lu nga xamante ni pour l'instant dañ ko wax. am na non pour l'instant conférence de presse bi ñu doon def rek lañu mën a wax. mais am na yeneen plan d'action yi nga xam ne day ñëw mais du nit ki booy dem guerre doo wax ni lii laay def wala lii laay def wala lii laay def mais na xaar lépp moom moom moom Racine na xaar lépp bañatuñ ci dara na xaar lépp mi ngi ñëw lu mu mën a xaar rek na ko xaar parce que lii mooy euh, tey mooy première journée bi nii nañ dem si kanam bu yàggee sax biir hôtel lañ koy fekk génne ko délogé ko biir hôtel ba duñ ci bañ dara comme état bi moom fu mu nekk nii nee na état moom moom daal neen état bu ñëw daal day ànd ak yow. keroog ñëpp dégg nañ déclaration yam néna day ñëw ak son frère Diomar Diakhar Faye du dem opposition Racine yow yaay dem opposition par force par force da ngay dem opposition yow du président bu ñëw nga and ak mom and ak Abdoulaye Wade and ak Macky Sall hein? bëgg ak fekk boy ndaw yi nga ñu boo dof dof la dañ lay déloger sax biir King Fahd Palace jaa ngeen jëf di leen jaajëfal bu baax.